appliquer texte bi ci lettre bi est-ce que dina yomb ba expliquer euh, plutôt ci ci ci lettre bi way par exemple ci niñ ko bindé mais buñ ñëwé ci esprit bi manam mhm. loolu tam bëgg na xamna ni ni kat nga mais bëgg na par exemple loolu aussi nga leeralal ma ko li tax may wax moy li ko tax a ak niko nit ñi mëna xalaté peut-être mëna nek nekk. Mhm. et par exemple da fay jaxal nit ñi trop Ngouda parce que wax dëgg yàlla euh, kat nga analyste nga mais kenn mësula dégg. nga am ay critique yo xamni def nga ko ci démarche Ousmane Sonko wala ci partem wala ci doxalinam c'est-à-dire da nga dem sax ba yor posture parfois bo xamni opposant la c'est-à-dire à chaque fois yang ngi tiré ci état bi yaa ngi tiré ci Macky Sall wala tiré ci sen ay décision ndax japp nga ni dina yomb nga expliquer nit ñi que man kat mangi, mangi mangi mangi amna ndombo tank ci parti bi waye ci parti bi waaw xam nga pap nga may ma tuti Ousmane Sonko naa ko tudd homme politique la parce que yaa ko tudd mu nekk ci réew mi di politique ak ñeneen yor parti jàpp naa ni dama koy jàngat comme ni may jàngee yeneen homme politique yëpp. parce que dama jàpp ne comme ni nga ko waxee analyste la. mais toujours à décharge. non du tout ma jox la. ma ah, bàyyi ma jox la exemple. toujours à décharge ma jox la exemple <laughs> bàyyi ma jox la exemple. waaw. locale. Mm-hmm.

d'accorduma Ousmane Sonko duggu bureau de vote du jël euh, bulletin APR ben benen bi ci top moy man Ousmane Sonko ak Macky Sall wala kenen la yamalé ci jangat non mais bayima non man dama fogon ni. non yow da nga question bayima ma xam nga lan mo am Sénégal Lima ma mus wax yépp bu mhm. ko jëlee. moy mhm. lu bari dama cey am deug mhm. man parce que deug ma ñor. bu Ousmane Sonko amone 100 deug ci kanamu Sénégal ak ci kanamu nguur gi ma ni moo am dëgg bu nekkul ci dëgg cent fois ma ni amul dëgg donc bu ñu ko jaayee doole man damay taxaw ni dañ koo jaay doole ma wax. Mhm. taxaw naa fii donc fii ne Karim dañ koo jaay doole ma dem cour de justice de la CEDEAO jox ñu dëgg. Mhm. ma toogaat fii ne Khalifa Sall dañu koo jaay doole cour de justice de la CEDEAO jox ñu dëgg. Mhm. toog fii ni Ousmane Sonko waruñu koo convoqué parce que dafa am immunité ne ñun la règle d'immunité bi nek suñu constitution ñun changé wuñu ko En France lañ ko En ñom 95 dañoo changé donc immunité bi député am au Sénégal c'est absolu à part le flagrant délit la preuve c'est gisee même biñu ñëwé doyen des juges Samba Sall yàlla nako yalla xaré aljana biñu ñëwé mu amaat benen délit d'appel à l'insurrection dañ ko indi rek mu ne leen leen ko waat assemblée nationale ngeen lëfewaat immunité donc c'est en fonction de la science parce que man nitu science là mais je dama am personnalité Moi, là, je d'accord mais man man vraiment xaar ma euh, à plusieurs fois euh, def